asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyuwee ñu daal di dellusi ak yéen ci naafila guddi gi euh, guddik tey gi nag yemoo ak li nga xamante ni moo di ñaar fukkeelu guddi ak ñaar ci weeru koor naafila bi ñaari rakkaan la rakkan bu ci nekk da ngay def fatiha benn yoon daal di def sabisma rabbika laala benn yoon daal di jàng qul aouzu bi rabbin naas benn yoon su ko defee loolu moom mooy li nga xamante ni mooy naafila guddi tey gi yemoo ak vingt-deuxième nuit bi ñuy ñaan yàlla rek lépp loo xamante ni ngëneel la gune ci guddi gi yàlla nañu ko yàlla defaral yàlla nañu yàlla nangu suñu koor te musal ñu ci xiifug neen ak marug neen ñu di leen ñaanal koor jàmm te di leen jox di daje ak beneen